بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمتاج نبتليه فجعلناه سميعا بشيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يسر بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فدة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فدة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما سورة المرسلات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عطفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عزرا ونذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل قتت li ay yawmin nujilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl waylu yawmaidin lil mukaththibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin waylu yawmaidin lil mukaththibin alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin la qadarin ma'lum فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي فلاش شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشعر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت شرابا إن جهنم كانت مرصادا للتاغين مآبا لابثين فيها أقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفادا حدائق وأعنابا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 فالسابحات سبحا فالسابحات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتيك حديث الموتى إذ ناديه ربه بالواد المقدس تويه اذهب إلى فرعون إنه طغى فأوهل لك إلى أن تزكيه وأهديك إلى ربك فتخشيه فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فعصر فناديه فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشاه أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها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 وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الشهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير خلق أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعبير على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعديل أو تعديل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو سير اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إغراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل للحال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأخطاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبساطة والأمان ولا تحتم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان فنبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومنكر الديدان فبيض وجوهنا يوم البحث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وفق الميداننا بالقسنات وثبت أقدامنا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 وبالطاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالضال دنوا وبالظال دقاء وبالظاء الرحمة وبالزاي سلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالطاء تهالة وبالثاء سفرا وبالعين علما وبالغين غناه وبالفاء فلاها وبالغاف غربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعدة وبالنون نورا وبالواو وسلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا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 أتوب إله الذي أمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من بلا ناديته جل ومن وكرمني تكريم هاجو وكري بالغم بريئا رحمن هب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قال خذ أمك المصطفى عن كل مفسدة فلترحم الخلق يا من جدهم بداء خذ أمك المصطفى عن كل مفسدة فلترحم الخلق يا من جدهم بداء يا مالك الملك يا من جل عن قوة ارحم جميع الولاء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 jot suñu ay vidéo da ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international